السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جلبي دنا بالوا جفيل أجنب أكون بكيل تجيت الشيء سلكي لفد دي الشيخ محمد المنتقى أيده الله ونصر وحفظه وستر وصححه وعمر wa rahima salafahu wa ghafar ñoo ngi leen di fàttali suba soir ak bisu iid di mbuumbum koor mu toll ci saa te mooy ñeenti mudd ñu di ko génne ci dunde génne ko war na ci jullit góor ak seeni safaan kilifa gan moo ko koy génnee ki moo xam soxna la wala doom ju góor ba ba muy mat wala doom ju jigéen ba muy am borom kër wala ab lar moo koy génnee ko ci rawatina bu gën a lee koy jox waaye li gën tey sunna daal mooy génne ko ko sañ a jox xaneen ci ñuy jox asaka bàyyi leen ndax ñu am luñ lekk ba duñ yalwaan ci bis bi bokk na ci li taxoon li ko taxoon a jug taxoon yonent bi alayhi wa alihi salaatu wal barakatu wassalaam farataaloon la ca des di setal ki wooroon ci laxu ak rafas rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zakat al fitri طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة الأكيد فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات ابن عباس jox ko ñi ko jox lu julli gi koor mu nangu lay doon gannaaw julli gi boo def gannaaw julli gi nag mu nekk rek sarax saraxe kiñ koy joxit na nekk af gor di julli summa zakatul fitri saamun qad tajib amma kuntuhu minkum tulib min muslimin bi julli an qurban nañu génn ko lu jiitu kore ji lu ëpp ñaari fan am ñu ne ci ku dagal waaye balaa génn ko dégg ci war jant bi so ci bis bi mujj ci koor gi fi waxtu wi tàmbalee war a yem it ci soog jant bi ci bisub koor gi waxtaar mi nag te mooy fi mu gënee ci fi fajar di xare fi nga xam ne woor fi la war a bàyyee di ay til abu yadi min al xayr minal fajr yam ci julli ga yëg gi fuñ ci kàbbare kàbbar bu jëkk rek jullukaay bu man doon moxtaar mi jeex na foofu loolu tax ñu sopp julli ji di naaj te naaj ji bañ a egg tisbaar ba moxtaar mi di jeex ku weesu tisbaar ba jant bi so te génn ci lu nga ba waxtoom jeex